Assalamualaikum, mbokki Senegal. ñi ngi leen di nuyuwaat di leen ziyaara seen mbokki réew akhenaton moo ñëwaat fii am lu mu leen bëggoon a jébbalaat ci li nga xam ne mooy xew-xew bi lëmbee senegal yéen senegal gépp umpule wu leen ne démb ci guddi jël nañu kii di président ousmane sonko jële ko ci section de recherche gendarmerie bu ban dem ak moom te kenn xamul fu fu dem ak moom ay avocat am di ko wër gisuñu ko ba sànq lañuy ñuy soog a xam ne indi nañ ko ci tribunal bi nga xam ne mooy tribunal bu ndakaaru juge bi nga xam ne moo ko war a déglu ci xew-xew bi dugal ko ci biiram ay avocat am war a dugg ñu ne leen du ngeen dugg gis ngeen li ñu wane ci vidéo bi ñëpp gis nañ ko li tax ñu bañ avocat yi dugg ba Sénégal di Sénégal ba léegi ku ñu mas a jàpp yoon daf laa may sa avocat ñëw taxaw ci sa wet la ngay wax mu xam ko la ngay def mu xam ko ndax avocat ñoom ñoo jàng yoon kon ñoom ñoo la war a taxaw yoon maye ko da sax buñ la jàppee di la déglu bu sa avocat teewul yu la wax lañ lay déglu yëpp mën nañ koo sànni du baax moo tax buñ la jàppee wala ñu war laa déglu ci wàllu yoon li liñ lay njëkk a wax mooy am nga àq ak yelleef ngir ut avocat boo xam ne da lay taxaw buñ la ko waxul xamuloo ko buñ la dégloo lépp luñ ci mën a def wax yooyu day yàqu kon tey bi ñu jëlee Ousmane Sonko ci guddi ay 4 heures du matin génne ko ci gendarmerie section de recherche dem ak moom kenn xamul fu ñu dem ak moom ñu di ko wër fu ne gisuñu ko gisuñu ko tribunal gisuñu ko fenn ba sànq ñu indi ko tribunal. dugal ko ci biir bureau procureur euh, euh, juge d' bi le le doyen des juges Samba Sall avocat bi ñëw taxaw ñun leen du ngeen dugg loolu musta am ci Sénégal c'est la première fois yéen ñëpp gis ngeen vidéo yi gis ngeen ni avocat yi di xaacoo ak ni ñu mere lii amul ci benn réew ci àdduna. ma leen di wax lan moo xew ak lan moo nekk ci ginnaaw loolu nag ngeen xam ko li may wax ma bëgg ngeen tasaare ko ba Sénégal gépp dégg ko li tax nag ñu defaat loolu gannaaw ba ñu defee seen i njombe yu baree bare bari lu tax ñu jóg defaat li mooy Ousmane Sonko bii ci guddi bi ñu ko jël si 4 di du matin dañu ko drogué xaw ma dañu ko piqûre xaw ma lu ñu ko jox mu naan la xaw ma pompe bu ñu pompé ci néeg bi mu nekk mu mu nelaw ñu drogué ko bi ñu ko drogué guddi gi yëpp Ousmane Sonko tàqali na ak sagoom ñu futti ko ko ba mu set wikk def ko yaramu neen filmer ko film boobu mi ngi ñu bi mu xëyee ci fajar gi xaw xaw a ximmaliku dorog bi ñu ko dorog jàpp ko ñu di ko wax loo muy wax wax yoo xam ne pour di wax ne moom lii ñu koy jiiñ ci Adji Sarr moo ko def wax joo xam ne borom moom xel defu ko waaye ku xelam dem ku ñu drogué moo koy def ñu jël bande yooyu ak ni ñu ko futtee ak film yañ ca def yépp boole ko ñu ngi koy monté jamono bi may wax ak yéen ñi ngi monte film bi pour génn ko yàq deram moo tax juge d'instruction bi waroon ko déglu sànq ci tribunal bi dàq mbir mi ba altine ndax montage bi rek ni ko war a defaree moo tax fi mu toll nii ñu dàqaat mbir mi ba altine loolu nag mbokk yi maa ngi leen yëgal ne maa ngi leen yëgal ne luy jot jot na gannaaw dee parce que bés bu nekk ñii ñu seqal mbir mi ñuy ñoqale si ñoqale goo xam ne ngir bëgg a faagaagal doomu jàmbur bëgg ko teg ci moom ay tuuma bëgg ko di ko taqal ak yàq deram ci kékk muy Ousmane Sonko dem nañ ba drogué ko futti yërëm yi def ko taatu neen mu tàqali ko ak sagoom ñu filme ko di ko waxloo ay wax yu kenn xamul ngir mu nangu ne moom moo def li ci Adji Sarr te yëgul tiinul bi mu koy lool lépp bi ñu ko koy waxloo àndul ak sagoom moo tax ñu enlevé ko maanaam dañ ko këf siif ko Ousmane Sonko yóbbu ko kenn xamul fu mu nekk loolu lépp ci guddi gi lañ ko def kii préparé loolu nag nga xam ne moom lañ jox opération monté bi ak vidéo yi ñu war a génne mooy Aliou Sall bi nga xam ne journaliste la woon nekk ci fondation Madame fay Sall Aliou Sall moom laay joxe turam les patriotes yéen ñëpp Aliou Sall moom lañ jox dossier boobu pour mu def montage yi pour ñu génne ko pour yàq dara Ousmane Sonko. lii nag Macky Sall moo ko moo ko deflu di wax ko kii nga xam ne mooy euh, Antoine diom ministre de l' intérieur Malick Sall ministre de la justice Samba Sall. le doyen des juges ak nag ki nga xam ne mooy procureur de la république di Bassirou Gueye ñoom ñoo nekk ci lii pour bëgg yàq deru usman Sonko gannaaw bañ ko bëggee rey mu mooy léegi dañ ko dorogee ci ay pompe ñu pompe ci néeg bi mu xëm nelaw ñu futti ko mu yeewu di tëñëx tëñëx ñu di ko wax la wax joo xam ne li muy wax xamu ko dara ñu enregistré ko di ko laaj muy wax ñu daañu ko monté changé ko def lépp loo xam ne bu subaa bu ñu ko génnee ñu ne Ousmane Sonko kat kon moo sàkku Adji Sarr ndax wax na ko bandi baa ngi nii Aliou Sall bi nekk fondation Mariam fay Sall te nekkoon journaliste moom lañ jox dossier boobu pour montage yeeg affaire de communication bi ak presse mbokk yi dama bëgg li ngeen ko ba ñëpp ñëpp ñëpp yëg ko parce que ñoom lépp lu ñu def suba ba ngoon daañu xam te bu ñu ko xamee daañu ko génne balaa bande bee génn dama bëgg sama wax ji àgg ci Sénégal gépp diaspora bi ne ko ñëpp yëg œil pour œil dent pour dent bu ngeen bàyyiwul duñu bàyyi seen mbokk Akhenaton moo doon dikkaat di leen jottali xibaar yi nga xam ne mooy ñoom ñi nga xam ne ñooy ŋànk réew mi tey ba réew mi tàkk ñuy nasaka nocci ci ay tappale duñ leen ko bàyyee Macky Sall suñu benn kàddu mooy lan abal ñu réew mi delloo ñu suñu réew jox nañ la